sirasiya maqaama la bu xam ne abu zeydin dafa wax ne dafa am doomi jigéenam jum ba màgg mu bëgg koo jébbal jëkkat te nag dara mu bëgg ko waajalee fekk pexe mi pexe mi yëpp nag ah, luñ ko jox mu naanee ji sàngara rekk la mu ne hakka nettali na alxaaris waaris ibnu hammaam xaal mu ne marat romboon naa fii tatwaa fii ci samay wërwëraan hmm. bi siiraas la ci dëkk bu ñuy wax hmm. dëkk bu mag a la ci réewam Faris hmm. dama ca romboon xalaa naa din cim moo xam ne ya tawqifu dana mu taxawloo al mujji ta sa aji romb dama ci pénc moo xam ne kenn mënu fa te taxawul walaw kaana ak lum nekk nekk ala aw masin ci yàkkamti hmm. ak lu ko ay yàkkamti peeg peeg daal kenn mënu faa jaate taxaw hmm. ya tawqifu dana mu taxawloo al mujjita sa aji romb hmm. walaw kaana doonte nekk na mu ala aw masin ci yàkkamti falam astati manuma taaddi taaddi romb penc ma wala xata jeewawul xadami sama ndëggu fi taxatti ci jéggim léegi nag mënu ma ko romb noonu rek ndax ma ne su ko romb fa mm-hmm. mojtu ma jéng mm-hmm. ilayhi jëm mm-hmm. li as bu ka ngir naa nattu sirra jawhari yi mbootam wurusam wa ak nakala waandur ak maseet kayfa nakala samaru woo meññatam min sahari yi ci tóor tóoram ba ma demee fa ma taxaw seet li ko tax a ndax ni mu mel ci zahir nii mel na ko ci maanaam de mm. fëy daa ci mbettal ahluhoo ñooñ penc ma mm. ay fardu lañ ma seet ma génneel la mm. ndege penc mi nekk ay nit lañ ñoo xam ne amuñu morom koo ca dajee rek da ngaa ne mooy kilifa ga ndax nañ doonee nit ñu mat walaay ju aji jeng ilayhim jëm ci ñoom mu faadun ku ñu jëriñ la soo demee ba da nga fa jëlee njëriñ bu baax a mm. mm. wa bay na maa diggante ba ñun mm. fii bu kaaxaatin ci mbóorante adiya ba neex minal axariidi dégg nga adiya ba atraba atraba mu gën a bégloo minal ci ay wëy waat yaba te gën a neex mm-hmm. min xalabil xanaqiidi mm-hmm. ci lu ñu hon xóot mm-hmm. mooy sing sàngara ñu ngi koy ci ay càmbari sàngara càmbari tànn wasi ci leneen dégg nga waxtaani moo gën a neex sàngara moo gën a mën a bégloo ay wëy istimbetter ihtafa peeg na bi naa ci ñun so tim rey ni borom ñaari sagar parce que da ko jegeñ na mu yu naa hisu de làq alhum rey ni ñaari dund yi te muy jege naa am téeméeri at ak ñaar fukk xañ na soo jàppee dund bu ne jom benn fukki at la fahiya mun na yooyee bi lisaanin ci làmmiñ taliqin wu daa ji boyu mun na yoo bi mu na yooyee nag xam nga ne làmmiñ yam na kàddu wa abaana mu biral ibaanata min biral ab tuddakoor hmm. ba mu waxee xam nga ne kii wax kat la hmm. su ma taba topp mu pereng layu xuwatal hmm. muntadina pereng layu booy penc yi mu toog tooginu nit nit ak penc wa mu ne allahumma jalna min almuhtadin allahumma yow buur jalna yal nag ñu def mais moo tëddee na ñu bokk ci ñu gindee ku ñu góob. Mm-hmm. fastaraahu dal de ko xeeb. Mm-hmm. alxawmu nit ñi. Mm-hmm. li timre yi ngir ñaari sagar yim sol. wana doo ñi fàtte ne. annal mar a naka bi axara yi nekk na ci ñaar gën a tuuti ci moom mm-hmm. te mooy xolam ak làmmiñam mm-hmm. nit su xamee xol bu mën a takk mm-hmm. xam làmmiñu mën a wax leer xam xam làmmiñu mën a wax lu leer fu ñuy soxlaa liggéeyu ñaar ñooñu war suñ ko faa xeeb Omar ibn Abdul Aziz ba mu faloo fu ne ay wufóor dafa bàyyee ko da ko ndokkeel bi dafa am wax du boo Mm-hmm. ba ñëwee xam ko jóg jël seen kàddu mm-hmm. xam nga dinaa leen ne ko li yaqum mm-hmm. man huwa aqdamu minka sinnan non gannaaw ay mag nga ànd ak toogal xam ku la fay mag yow kooka nee ko yaa amir al muminin al maru bi asqarihi qalbihi mm. wa lisaanihi mm. fa izaa manaha Allahu al-abda mm. qalban haafidan wa lisaanan laafidan istahaqqa lil kalam ba wax ba àgg wax ak moom ma ne su fekkoon mbir yi ci had la topp kon doo faru alila mag Ibn Abdul Aziz nguur mënu ko woon yëngat ci dara ah. xale yoo xam ne na dina la. ñu xaraw ya ñu na di hooxante. Hmm. faslal xitaabi faslul xitaab. Hmm. mu ne nag man ak ñi ma toogal. Hmm. ñu ngi waxtaan ba dugg mbiru faslul xitaab yi. faslul xitaab dafa am ñu ne mooy amma baadu ñu ne yonent yàlla Daawud moo ko njëkk a wax moo tax nga jàng wa aataynaahul hikmata wa faslal xitaabi ñenn ñi danañ saban waayil moo ko njëkk a wax ñenn ñi danañ xusum nu saani data moo ko njëkk a wax wa yaxtadduuna wa yaxtadduuna ñuy lim xoote woo bantam min mm. al ahsaab mu bokk ci matt yi mm. mu ne mu nga toog fële wax lii mm. waaye gaa ñi konte wuñ ko sax pour ñoom kii ak nit ku jagadi dox ba ak si rek woowu te moom la yëfiisu den muy tudd bi kalimatin benn baat wala yu binu dubiral an simatin benn man rek xam nga waxtaan lu mu xumb xumb nag moom daf ne mekk rek waxul dara ilaa sabara ba mu nattu xara mm. ihaawum seeni xel mm. wa xabara te mu xam mm. saa ilawum aji ja aji jaake seen mooy ka ñàkk sow bëri lew wara jaawum ak aji lëng seen mooy ka bëri sow déglu na leen déglu seeni kàddu ba xam ñi nga xam ne nekk bu ñuy waxee de wax lañ def rek waaye amuñu xam-xam ak ñi nga xam ne boromi xam-xam dëgg lañ miin wax ba de wax kat. bokkul am xam-xam dëgg dëgg dëgg dëgg. bokkuñ dëgg dëgg bokkuñ dëgg dëgg bokkuñ dëgg dëgg dégg nga. Tahir Avandi. dañ ko faloon. mu doon ko borom mu doon borom xam-xam bu ñëpp nanguloon ci jamono baax lool. dañ ko faloon nag. ay nit lañ ko fal. xam nga tey lu mel ni préfet amul du benn ci réew yu bëri la waaw pal gam faloon ay nit faloon nañ ko ci nguur gi hmm. xam ñu ko méngoo hmm. maanaam léegi nag ñi ko ñi méngoo fal fal googu nag xam ñu ko bokkal hmm. ñoo xam ne heure bu nekk ñu ngi wëree lu def ay conférence def discours di wax moom daal mooy dafa tànn noppi rek moom daal liggéey moo ko ñor waaye ñi ko topp di ay soppeem ñoo ko topp fokk rek ah nga wax hmm. ba am benn bis mu ne dafay def discours mooy hmm. ne yéen de yéen a ma tànn hmm. mag ñi ma bokkat xaw gi ñun ñiñ tànn lañ liggéey bi mooy bi ngeen ñu tànnee tànneef ci birna nag foo ko fekk ci mbir ma lay bokk mm. waaw yow buñ la tànnee nga dee kenn ci nit ñi mm. buñ la tànnee ci ñun mm. ci ñun la bokk kon ngeen xam baax ne man ci yéen la bokk waaw xelu baax a baax xam nga li mu bëgg a wax mooy nit yi société bi suñ jugee ba noppal ko moom du sonnal kenn waaye buñ dëngee na bay sonn lekkat mm. duñ mën a ñàkk a sonn mm. ah boo demee ñi koy sara bu ñu jàng kamatu kamatu ko noonu yu walla aleykum mm. da nga ko ca de fekk hadis boobu bu ñu topp saraxam da ko ca fek fekk xam nga kooka boo seetloo ña doon sow nañ bëri ak waxam ju gàtt ji ni mu ñoree xam bokkul selu <laughs> baawa wa xabara te mu xam saayilahum aji jo aji jaage seen mm. mooy ka bëri wut soow mm. waaye mu ngi ci gétt gi rek mm. mooy kii amul xam-xam waaye mu ngi ci waxee kaay bi rek warajaawum ak aji lëng seen dem na ba xam mi ñëpp fa ina taxraja ba mu génnee dafa inahum seen yu nëbbu ya ya ñu suul wastan sala te mu yulli kanaa inahum seeni tunkaar ba mu demee ba xam ni liñ biroo ci xelaat mm. ak seeni mustawayaat qaala mm. wax na daf leen mm. yaa qawmi ay yéen law alimtum bu ngeen xamoon ne am na wara alfidaami naka nekk na ci gannaaw saañ saxol mu daami sell ak sangar lama taqattum du ngeen xeeb sa axlaqin boromi sagar wa qultum ngeen naan ma lahu ñaalakum min xalaqin sangara ci buuteen mm. sànni wula ko mm. lu tànga xam sangara sangara mm-hmm. selu ngu baax mm. waaye nit itam nag gannaaw jaxasoo wula ak moom lu xam ne de juddoo ko dayoo ko gisee rek taxul nga xam lu la summa fajjara topp mu balal min yenaa bien adabi ci yol ndey adab wa nukkati ak i sew sew an nu xab yi day tànneef maa lu xam ne jalaba bi jéena bihi ci moom mm. ba day alaje bi way tumaranke kéemaan mm. wa tawjaba te mu xeeyoo mm. ay yug tabu bu bindee ko bi saw bi sahabi ci ndoxam wurus mu génne waxi xam-xam yoo xam ne jaroon na bindee wurus saraakat bi mu ne xëy na abiyaatu naas yi lay génne mooy mm. wax ka am na hum fi suduri naas ab idatun mm. turit suma axtaru fiha wa maxtamadu sell mm. bu baax a baax ah, turit suma axtaru fiha wa maxtamadu fatana yubduna linnaasi ma taxfa damairuhum ka ma tuxfi damairuhum yubduna linnaasi ma ma tuxfi damairuhum kaannahum wajadu min alladi wajadu dallu ala batini dunia bi shahidiha wa in mimma xaba anhum billadi shahidu mataalihum alxaqi ma min subatin xasaqat illa wa minhum ladayha kawkabun yaqidu ay gaay lay melal nuñ xamee loo mën a nekk ci xelal nit xanaa kan bi ne yaakaar naa jombul lii la leen nettali. Hmm. <laughs> Hmm. Hmm. falam maa xalaba ba mu hurujee. kulla xilbin bépp xel. wa xalaba te mu jàllar bi ilayhi jëm ci moom kulla xalbin bépp xol. taal xala yëngatu na. liyaal xala ngir na mu laxas. wa taahaba mu waaj. liyaasaba ngir na mu def. ba mu ba pare hmm. ba fii hmm. doo góor noppi hmm. sunu a baax buur ne mu ngay dem fa taal faale xat lal haju aljamaatu mbooloo mi bi saylihi ci lafitam waa xatte mu gàllankoor masraba saylihi daw way yol ndeem mbooloo mi taxaw ci kanam ngi téye yi réew na ko doo mën a dem waqaalat mbooloo mi dal de wax la wa ñaal ko ne ko xat araytanaa wan nga ñu de mm. was ma xidi ka mandargam sabante maysar mm. fa xabir naa xamal ñu xan xaydi ka sa xott xaydu mooy xottu nen mooy sa sahir mm. wa mu xika ak sa pëdd mooy bir nen waxal ñu sa mbir sahiran wa batinan mu ne fa samata mu noppi su moo noppi koo xam ne ubhima wedem loof na ko mu noppi comme nit ku wedem mm. su ma wala topp mu xëw mm. hatta ruhima ba yërëmee ko ñu dem tuuti rek callan mm. ku baax a baax callan ku baax a baax mu ne mu yóbbu ba yërëm yëpp façon jógee rek qaala wax na arraawi te mooy xaarit mu ne falam maar ay tu bu ma gisee abi zeydin jaxaseeg abu zeydin waraw ba hoo ak faatam saw bu ak raw bu ñuy ci soow la mooy doxalinu abu zeydin ci mu gisee wa usloo ba hoo ak yoonam almaluf wari wuñu miin wa ba hoo ak jubluwaayam comme man xamoon abu zeydin démb bërki démb te gis naa lu ak doxalinam gaa me taamal bi settantal naa aseex ak góor gi hmm. ala suhumati mu hayyaw ànd ak lapp ak xar kanamam bi nag hmm. ak xar kanam bu sew bi nag hmm. wa suhukati rayyahu ak kare xeñam gu naqari gi nag fa ida ci mbetteel huwa moom iyyahu ndeke moom la dina hariri yoon lu tax muy jëfandikoo loo xam ne moo rayoon imaamul bisri yi nag ñu wax nañ ko xam nga huwa mubtada la mm. su fekkee iyaahu mooy xabaram mm. iyaa nas bi la mm. xabari mubtada koy rafa seetluwuloo ko bu baax a baax masala sumboriya mooy masala mi reyoon si ba wéyi ak kisa iyu dañoo daje ci barabu Harouna Rashid Sidu wax ne def leen munasara mm. si wéy na kisa yi hubbin mm. kisa yi wax ne kuntu azunnu mm. anna alhaqraba asaddu lasan min assumburi fa ida huwa iyaha fa ida huwa iyaha si wéy na ko déedéet fa ida huwa hiya mu ne ko fay sax huwa iyaaha si fay na ko déedéet hmm. xam nga léegi huwa bi mubtada la ci gannaaw isa alfujaiya hmm. amagul xabar kon beneen damir bi war a ñëw de xabari mubtada damir rafa la war a doon hmm. damir rafa yi munfasil hiya la war a bu ko benn jigéen moomee seetlu wooloo kisa yi ko fa isa huwa iyaaha laa di wax parce hiya dafa nekk huwa dafa nekk mubtada ma xasab xabaram nasale ko hmm. léegi iyaa bi dafa nekk xaal di hmm. maarifa lafdan tey nakira maana hmm. woo moo ko do iyaahu mbir moom mu yaji dafa xam nga lay na rasul ne ko li nga wax na nga ci waxi arab foo dëgg te man la ko nangu moo ko gaa yi ne nenañ nenañ la wax rek rek nenañu nenañ ñoo demee ci araab mu defaral ko li mu bëgg ko lii la waaye lu mën a xalaat fexe daal ba moom la rëdd faral daal ci dëgg dëgg waaw moom la rëdd faral loolu moo métti si wéy ba daana gisi la doxee génn àddina te loolu bu baax a baax ànd ak nga xam ne taalibe si wéy yi mm. ñu daan def ak moom munaasara di ko gañe mm. waaw waaye nag yàlla moom buur la dafa jar ragal mm. waaw maanaam taalibe si wéy yi daan nañ def ak moom munaasara di ko gañe waaye masala bii moom noonu la demee ci diggante ma si wéy léegi nag si wéy yi mooy imaamul bisri na moom hariri yu mooy bisri yu ci wàllu naxwu di jëfandikoo loo xam ne moo rayoon ñu <laughs> ne lu tax muy def loolu mm-hmm. lu tax muy def loolu mm-hmm. waaye xam nga nekkalu fi imaamul bisri yii na mm-hmm. waxi arab la fi neexal su fekkee gis na ne waxi arab nangu na ko su ko defee lu ci yoonu nit dello dello waaw te mooy di ne gis nga ku baax waaye nag nga xam ne daal eh, baati moom coow la woon daal coow la woon dégg nga fastaxraqal fastaxraqal koofi yu xalbal maliki waaw mu ne koofi yu ba jël na xolab buur ba jël na xolab buur ba waaw noonu la demee buur bi mooy Haroon Rasid koofi yu bi mooy kisa yi fastaxraqal fastaxraqal fastaxraqal koofi yu xalbal maliki ba ma àgg rek gis nga ko fa katam du mën na bësir la woo mbootam rek hmm. man daa ba ma xamee ne Abu Zaydin la hmm. ah booba laa xam ne plan kese la hmm. waaye nit ki yow nag du doot lu mu def xaw lu mu xam wa ah dama ko sural rek e kama yóg ta mu digi dee fi nëbbee rek adda addaawu jàngoro addaxiilu ju daa ji nëbbu lu ji tegu wasatartu wasatartu mën na bu mag rek woo pexe ba in lam yakun donte nekkul yu xelu di la ne boobu ba ma xamee ne moom ne mbir yi ay la kay hmm. kenn du ko déggee ci man waaw hmm. ah, baax na boobu mu hmm. jooy hatta ida nasaa ba mu génnee an iwaalihi ci qawum wa arafa te mu xam xosóor yi sama fakkatalu ala xaalihi ci mbiram ba mu jooyee bu baax hmm. ba bàyyi hmm. ma xam ne man mii xam naa ne ci ay tapale la nekk hmm. ramakani xool na bi ay ni mit hakin ci bëtam ree hakoon doone ma jàkk ci bëtam nit koo bëri ree su ma tafiqa topp mu xarab yun siru di sadd bi lisaani mutabakin ci lamiñu ay jooy jooylu mu commencé na def sadd wëy yi mm. mu ngi aw waxinu kuy jooy jooylu mm. waaye jooylu de mm. mu naan astaghfirullah wa aadu lahu min faratatin asqala zahriya ya qawmi kam min haatiqin anisin ممدوحة الأوصاف في الأنبياء قتلتها لا أتقي وارثا يجلب مني قوة أودية بمهاجر astaghfiru maa ngi jéggulu allah hmm. wa aano te maa ngi toroxlu lahoo ñaal ko hmm. min farataatin ci ay rëcc rëcc hmm. ak xalaat yu diisal nañu zahriya sama gannaaw bakkaat yu bëri yu ma gàccoo ba tax ma diis ganna maa ngi koy jéggulu yàlla pour na ma baax yaa xaw mi e yéen samay bokk kam min haatiqin bëri jongama ju tedd hmm. haani sin kuraaj yàgg ni ndeem hmm. yàgg hmm. kam min haatiqin bëri jongama ju tedd mooy jigéen ju masoor te amagul borom kër mooy Aatiq xaani hmm. seen kuraaj yàgg nañ ndeem mooy koo lamb mooy pefeñ hmm. bëri jigéen joo xam ne ko lamb la def ko yëg xam jëkkër la hmm. wala koo sa xam jëkkër la moom du xatil awsaaf bi këre ku ñu taggi melaw fil andiyati ci penc yi dana të xam jëkkër googu yëpp te góor ñi fañ koy tagg doo xam nuñ ko bëggee wér na ndaw su mel tuha rey naa ko. dama ne ko faqaay. laa taqi den may ragal. waarisan aji doon. yatlu bu joj dana sàkku min nii ci man. fayu aw diyatan wala diya. te bu mu paree hit sama yoon nekkut ci kuma yóbbu ci yoon. pour naan day fayu. wala day lañ fay. ba mu ko tuha rey naa ko. laa taqi den may teet mm. den may ragal mm. warisan aji doon na mm. yatlubu joj dana sàkku min nii ci man xawatan fayu aw diyatan wala diya so ngeen di seetaan di yéen bu ngeen xamul li jag ci yéen man xam naa li jag ci man waaw nit ki jàng indi ko fi may ko bu ne may may jàngal ni ko bàyyi loolu du ma ko def waaw yow ku jàng ni nga ko seet bu dikku si da nga koy xaar waaw waaw su ngeen xamul lu jag ci man xam naa lu jag man. waaw ku fi jàng indi man di jàng def ngeen ko bàyyi hmm. du ko def. waaw du ma ko def. souvent ngeen di seetante. su ngeen xamul lu jag ci yéen man xam naa lu jag man de. waaw. dégg nga waaw. xatal tuha rey den may ragal waarisan aji doon. Hmm. yadlubu joj dana sàkku ni ci man xawadan fayu. aw diyatan wala diya wa kullama tuznibtu bépp bu li loo neex fii xatlihaa ci rayam ahaltu ma jàllar bi bisam bi bàkkaar bi xalaq diyati ci dogal yi te saa saa su ma nit waxee ne li nga def li nga def baaxut ma ne mbiram dogal la waaw maanaam mbiram dogal la ida nasalal qadar hmm. saabal hadar hmm. ah, dogal moom su amutul wat ko li ma xaaye gannaaw yoga dogal na ko ci man hmm. mu koy baax <laughs> loolu laa leen wax dogal na moom ci dañoo yeddi nit de da jëlee kenn de diggante ah. yàlla Moussa dafa daje woon ak Adama bañ déggee ma ne ko suñ coono faj ñu fi yaa ngi ko teg. yow bañ la waree àjjana boo yemoon fañ la yem loo. ñu fekk la. kon nit yi duñu la. ñu nekk yaa ngi ko teg. loolu ko Moussa wax. nga demee àjjana bañ la yóbbu àjjana boo yemoon fañ la yem loo. ba génn wuñ la ba ñu fekk la fa. kon métti yi duñ ci jaar coono yëpp yaa ngi ko teg de. mu mm. mm. ko eh, ci man la amee wala ci dogalu yàlla adama wax ko loolu mu ne ko he baal ma xool nga dëgg ci dogalu yàlla jam dara ci boppam seetlu mm. ko baax a baax Iblis ba sama borom waxee rek usjudoo li Aadama te moom mu bañ borom bi doon ne ko rëbb naa la mu yaa dogal ma bañ <laughs> mooy est ce que ba nga bañ a ko xamoon naa ne dogal xamoon nga ne bañ laa dogal. Hmm. mu ne ko déedéet mu ne ko loolu tax ma bañ laa dogal. Hmm. xam nga li Moussa li Adama tontu Moussa. Hmm. te Adama de kuñ jéggal. Moussa def islam nangu. loolu la Iblis tontu rek. waaye pas-pas yi ñoo bokk. waaw Adama dafa waxee ci cadre nangu njaam. ak delloo mbir yi hmm. ak wane nu mu doxaatee dara nu kenn doxaatee dara ci mbir yi. Hmm. Iblis na waxee ci anam ak takabbur. Hmm. mel day critiqué yàlla ci nguuram gi. loolu moo tax kii ñu rëbbu ko. kii ñu jéggal. moo tax ma ne dogal moom xam nañ ci la mbir yi da amee. waaye nag ku foog ne sama borom du ci dee yeddee nit yi nag du ci dee nattoo nit ñi yeddu ko yi nag. dafa juum rek. waaw. la ma tudd nit bépp bàkkaar loo fee fi qatlihaa ci reyam mm. xaaltu ma jàll bi bisam bi bàkkaat bi mm. al aqdiyati ci dogal yi mm. walam tasal dañul nafsiya sama bakkan mustafriyatan de aji wéy fi xayyihaa ci réeram wa qatlihaa ak reyam alaf kaara ñànk yi ma topp ci sama bànneexi bakkan rek daray ñooñu rek walam tasal dañul nafsiya sama bakkan mustafriyatan de aji wéy fii xayyaa ci réeram faqat li ak olaf kara xëy hatta nahaa nii ba tere ma asay bu bay jaaw lamma badaa ba mu ci sama sox sama saxuwaay bopp andil ko wul ma seeti ci mooy googu de ba bay jaaw nag mënatuma ko def ndax mën naa am kattan la jeex na waaw so loolu surtout. su ma def lu bon di def lu bon ba yaakaar mu bëgg ne mënatu ko rek. waaye lu bon lim tolloo li man mu koy def. kooku tuubu lu bon la mu daan def. bana ko ne waaye tuubu. hatta naa nii ba tere ma. asay bu bi jaaw. lamma badaa ba mu feeñee. fii ma fay xëy ci sama soxuwaay bopp. antil kumul masiya. si googu mm. mm. de mooy. falam urix tuuruma hmm. mu saa waxtu ba bi jaawee hmm. faw sama wàllu bopp hmm. daman benn dara menaate xin tukkee ci jànq yaman benn bis wala musbiyatin du caggeen borom buri bu kawaru bee xamee ci sama bopp ba léegi daal tuuruma dara ci kenn waha ana ana ala ma yura minni wa min hirfati al arubu fikran taala taanisuha wa hajbuha hatta anil ahwiya wa hiya ala taanisi maktubatun ka xidbatil ganiyatil moniya wala manoon loolu la moniya walaysa yakfini li tajhisiha harida bi dooni illamiya wal yaddu la tooki ala dirhamin wala du qabrun wa sama musiya faal mu'inun li ala naqliha masubatan bil qaynati al munhiya wa yaxsilu al hamma bi saabunihi wal qalba min afkaarihi al mudniya wa yaxtani wa yaxtani min sana alladi yadon rayyahu ma al anhiya waa yëg leen ne ana man nag al aana léegi jamono bii ma toll ala ma ànd ak li nga xam ne yura def na ko gis min nii ci man mm. ak melokaan wu doy waar wi ngeen gis ci suma jëmm mm. wa min xirfati ak ci suma métier mm. al mugdiya ma daa ji ak suma métier mu doxadi mi teewut arubbu danaa yar bi karan jànq boo xam ne taala yàgg na tax nii suhaa lambalam waxaj bu haa ak hiitam xataa nit ak wiyati ba ci jaww yi ba ci ngelaw yi dama am jànq boo xam ne hmm. na fi de hmm. te dama ko yaroon hmm. nanguma ngelaw hupp hupp ko waaye te moom jànq boobule bikru boobule ala tax nii si ànd lambal gi ma ko lambal maxtoobatun ku ñu labat la te xibbatil xaniyati ni ki labat ak jongama al muxniyati judaa ju doole man faamee jànq boo xam ne ku fi yàgg la mm. te dama ko daan wattu bu baax mm. léegi nag ñu ko koy labat mm. comme ni ñuy labatee koo xam ne lambu dañ ko tam dégg nga fi mu ne delloo ko nag borom këram mu bëgg te nag waajaayam man damaa ngi téeméer wala sa yàgg fii ne te du ma doy li taj si saa ci waaja la illa miya dara téeméer xanari daa xande gërëm sax nag bi doole loo xëy téeméer waxuma yi nag téeméer ngeen maa jox hmm. waaye su ma amee la maa ngi téeméer yi nag jël hmm. waaw wala seeg fii ni duma doy di te ñi see ji waajalam hmm. illa mais ah, dari téeméer xanari daa xande gërëm nag ak bi doole loo xëy téeméer wali du loxo bi man suma loxo bopp laa tuur kii du mu takkan ala dirhamin benn dërëm denc ma benn dërëm wal ardu suuf si xafrun aji wéet la xam nga ne meññan mu ni tay dara wala garab bu ni tay wutee dara ci suuf mm-hmm. ko fi de mm-hmm. wa sama waa si mu siyatun aji la mm-hmm. xam ngeen ne tollu ci waxtu seenu taw continue bi li ñu sas mooy koloru dem ca kala tane jàpp naa ne yéen ma tane dem ca kala tane jàpp naa ne yéen yéen ma tane nga <laughs> faal mu heenu ndax am na aji dimbale mm. lii ñu am ma xalaat naftaliha ci toxalam mm. masubatan yoon muy ku ñu àndaale mm. bil qaynati ci jongama al mulhiya bu daa ji soxla bu daa ji soxlaal mooy jongama ju nag waajal ko jëlee ko fi nekk yóbbu ko fañ ko doon labatee la bëgg te war naa mu war a bokk ci yóbbalam mm. jéeméer bu mën a wëy mm. mën a bégloo xam na ko mën a dimbale mm. fa yaxtira saw sos mu raxas alhamma njàqare bi saabuuni yi ci saabu loolu de ku ko defal tàggale nga maag jaaxle fa mel ni tilim bu ma fët fóotal ba mu set tàggale nga maag jaaxle fa mel tilim bu ma fóotal ba mu set fa yaxtira mu raxas alhamma njàqare bi saabuuni yi ci saabu wal qalba mu raxas xol itam min afkaar ci xelaatam hmm. al mut ni yee dafay e songong lo hmm. ku ma ko defal hmm. yaa may yaram ëllëg de ndax xelaat yi ma xañ yaram da nga ko teggi wayaqta nii te dana mu kotti min nii ci man asana tagg alladi tagg woo xam ne yetta doo dana bondi rayaahu xejam gu neex maa at hete ànd ñaan danaa ko tagg ba mu sigi. Mm. danaa ko ñaanal itam. bu mm. yàlla tënnee dana mu kotti. min mm. jaman asana tagg. àll bi tagg woo xam ne toddoon dana bondi. ak yow kañam gu neex. maa la dañuy di ànd ak ñaan. daal léegi dafa am doo jànq bu mu bëgg a waajal. xaala aji solo ne falam yabqa desut fil jamaati ci mbooloo mi hmm. illa man dare koo xam ne nadiya tabe na lëhoo ñaal ko këpp woo ténkam wa hmm. mbaaxa te bondi ilayhi jëm ci moom xarfu woo xarfu hmm. kañam gu neex bi mu waxee baax si mu ne mbooloo mi nit ñam ak kenn ne seet na lum def jëmale ko ci moom falam yabqa desul fil jamaati ci mbooloo mi illa man dare koo xam ne nadiya tabe na yéen ñi doon jàng ma xama da ngeen a bokk ci bind bi rek kenn ku nekk la ko defe bu mm. yàlla dogalee mu mat mu mat moo di gën mm. te mënu ma suma ci jàngale bind yu bëri a tax te bëgg naa daal mu continuer mm. ma ne comme yaa koy jàngale nañ ko mottali waaw walam yow fil jamaati ci mbooloo illa man dare koo xam ne na diya tabe na la wa ñaal ko këpp woo teen xam wam baaxate bondi ilay jonjom har foo xañam gu neex falamma najahat ba fajoo hmm. boo yettuhee càkko téefam hmm. wakka mu la te mat mi atuhoo téeméeram hmm. ba nga xamee ne téeméer ba mu waxoon ne moom la soxla xam na ko axada xaraf na yus nii de tagg alayhim ci ñoom bisalihin ci lu hiw muy leen tagg da leen wax yu rafet di sant ah lii la yaakaaroon ba dikk fi de dëggal ngeen sama yaakaar yéen yàlla bu yàlla tas seen yaakaar lim diggee ci dimbale nit yal leen ko defal allahu fi awnil abdi maa kaana abdu fi awni axiihi yooyu nekk di wa te muy wax han saa xisaarihin peerab aji bëgg dem mu ngi waaj waajinu ku bëgg a dem xaalis ne na fa tabiatoo mu jóg di dem wa yusammiru muy wax han saa xisaarihin ci peerab aji dem tagg na baa gal jóg di dem fa tabiatoo ma topp ko li astarifa ngir naa xam rabi bata xidrihi ku ñu yari bergendam ma ne naa ko topp mm. ba xam xale bii mu ne moom la bëgg a jébbale mm. kum da mm. waman ak ki nga xam ne xatala rey na ko fii hiddasaani amri ci jël beneen mbiram ak li mu wax ne rey na nit ba tey te ñim rey seen deret dafa niir ku ko yóbbu ci yoon de kaas fayu wala kaas diya mos daam fa kaan na waska xiyaam yi daanaka gaaw ak sama jog daal masala meesa mella lal la woo ñaal ko maraami sama càkkute hmm. dama te sa yaa xarit Sàlla ah. nga ne ko ambalo bëgg sa bàyyi jox mu jox la ko yéen fa kaan na ka xiyaami daanaka gaaw sama jóg daal hmm. masala misaalal na la woo ñaal ko maraami sama càkkute hmm. xam nga ko aj moom day séntu kaw bi mu jógee ci saa si ma jóg rek mel na ni daal xam na ne xam fadala fa mu jege min ni ci man mu gaaw jege ma yootal ma rek hmm. wa qaala mu ne ma ifqa déggal an ni jëlee ci man sama wax ak yow la waaye dégg hmm. hmm. ifqa déggal min ni ci man an ni jëlee ci man qadlu misli ya saahi masjul mudaami laysa qadli bi lahdamin aw xusaami wallati onnisat hiya albidru bintul karmi lalbidru min banati alkirami walitajhisiha ila alkasi wattaasi qiyami alladi tarahu muqami fatafaham ma qultuhu watahakkam fi tawadi in shita aw fi lmalami mu ne qatlu misli rek sama kem ya say ya suma ndodo masjul mu daami jaxase sàngara la maanaam njar sàngara la jublu ci rey gi de lay sa xalli di sama rey mm. bila damin da nekk ci guntu mm. aw husaamin walla jaasi mm. waaye bu ko déggee jam nit mu dee gor nit mu dee loolu de waaw ah, bu ko déggee jam nit mu dee mbaa gor nit mu lim ko rek mooy njar sàngaram naan ah, waaw xatlu misli rey sama kem yaa ma dil mu daamee mooy jaxaate sàngara rek lay sa xalli de sama rey bi la demin de ci buntu dul mm. affaire jam nin mu de mm. aw ko saamin walla jaasi walla gor nin mu de mm. du lool walla tii li nga xam ne on ni sa lambalees na ko liñ denc loo yàgg ye moom albibru mooy jànq bintul karmi kay doomi sing mooy sàngara buy sàkk doomu sing buy denc lu yàgg la rek mm. lal bikru waaye du jànq min banaatil kiram ci doomu jigéeni way tedd yi mm. déedéet meññen moo xees mu bàyyeekoo ci karmu garabu sing moom laa garde ba mu yàgg mm. waaye bu ko foogee xale bu jigéen bu sëyegul bu am juddu du loolu de waaw wala tey li nga xam ne on ni sa lambalees na ko hiya moom al bikru mooy jànq bintul karmi kay doomi sing mm. lal bikkur waaye du xëy min banaatul kiram mm. ci doomu bay tedd bëgg naa koo naan mm. ya mooy xàndat ba ma koo naan mu bégal ma yooyu laa taj yi si haa na waajam ilal kaasi jëm ci kaas wa taasi ñaari baadi su réewuñ xiyaam taxaw allah bi dina xam ne taray ak gis mu xam mi ak sama taxawaay hmm. jokki di dem ci nit ñi da ko laajal hmm. maanaam lu ma ko boole ba ma koy ne ba ma koy naanee mu neex ci ma hmm. loolu waajal gi loolu la waaw wala tajir bi haa ah, ñaan na waajala ilal kaasi jëm ci kaasi wattaasi xiyaam yi sama jóg àll bi gi nga xam ne tara yaa ngi koy gis ba mu xam mi ak sama soxlaay ba tafaxam wutal la dégg ma kuntu li mu wax hmm. li mu wax xam ko kat waaw hmm. ah, xam ko kat parce hmm. que faa wuta la dégg maa leen kuntu wax na eh, wataa kam man ngay àtte ne fi tawa di ci du muyu insiita boo soobee afil ma labi walla ci yedde ah, bu la neexee nga gis ne kenn ku ne soxla ma ko tax a jóg te man léegi sama soxla su ko defee mu xaw a ci yow doo wax hmm. wala nga gis nit ku yiw daal lu yiw la war a dox hmm. kon man li ma def jaaduwul hmm. loo xam ne dama ko dox loo xam ne dama ko dox ah, ci duma yu rek ah gis ne gannaaw kenn ku ne soxlaam lay dox te man lii sama soxla ah jarul kenn di wax dara rek man ko gisee noonu yéen suy tabasoo rek afil malami walla ci eden walla gisoo ko muy lu hmm. te nit ki yiw lu ci la war a dox hmm. kon nga yedd ma ndax li may dox yiw dëgg yow hmm. kooku yaa xam sa gisin ah waaye man li may def def naa ko ba pare man raqaba naasa lam yadfar bi hajatihi wa fasa bi tayibati lfati kulla hiju xam ne yoo xam ne ku ca déglu nit ñi ah, da nga tag ba tëgi waaw ah. ne ko man loolu laa gëm. Hmm. moo tax faale ko mu nu may tagal li mu bëgg a def def naa ko. Hmm. waxal li nga bëgg a wax. <laughs> ne ko wax dëgg ah. Hmm. su ma xaala topp mu ne ma ana man her bii dun ku bon jikko la man di kat la. waaw ndax te yow rii di dun aji ragal nga. wa bay na naa nekk na suñu diggante ba noonu tàggaloo ba her dun ku aji sori. mu ne ma yow na ma yow donte yàgg na ñoo xamante ne mënuñu ànd. nga ah, gannaaw man dem katu gi jaawaale ya hmm. te yow xutt nga duñ hmm. mën a ànd hmm. <laughs> ana man ana man her bii dun mandikat la jikkoy mandikat la amee ko bon jikko waan te yow rek di ko ragal la bo bay naa nekk na suñ diggante baw nun tàggaloo bañee dun ku daa ji sori su ma waddaxani topp mu tàggu ma kon tala xamu ba yow mu ne kon maa nga ca wasawadani mu yóbbal ma mm-hmm. nasratan xool min si alaqin ci borom cofal mm-hmm. almaqamatu nañ maslibal jool mm-hmm. muy jàngale almuqayada almuqayada muy nga jël benn baat nii rek dagg ci ko jox ko maanaam jumla loolu mooy muqayada lii ab baat la nga fexe ba dagg ci baat bi daggit bu ne mu am loo ko firee nga ne baat bii de nit mën na caa wax nangam. léegi hmm. alxalaamaat. Hmm. mooy la ay mandarga. xam hmm. benn la te jamoo. waaye xam nga xalaa nit dana ko di tudd. te maata mooy dee.